ami téléspectateurs internet de Leral TV Leral point net amati na nu mbégte janoog yéen ci seen biir grand entretien tey nag ñu dem def découverte ci kan ci ki nga xamante ni moom la ñuy woowee Madzo naam du tax sax ngeen xam ko waaye buñ leen wanee bile la image di ngeen xam kan mooy Madzo moom mi moom moo nekk ci derrière euh, image bi moom nag moom moo toog xalaat ni lii war na ko euh, jaar na fi jaaree sax daal di véhiculer message am mu daal di koy def waaye nag lii Diouf bi la image dinañ dikk ak euh, moom euh, ci biir entretien bi ginnaaw gi rek dañ koy bàyyi sax moom Madzo mu daal di nuyoo nuyoog téléspectateur leeral Madzo ñu ngi lay nuyoo ñu ngi leen di fay salaamaaleykum di nuyu ñëpp di leen nuyu yéen di leen dalal dañ jox seen wàccuwaay ba mu mat di nuyu sénégalais yeeg ñeneen ñi nekk ci àdduna ñuy suivre seen seen seen chaîne. Mm-hmm. Madzo nga yëngu ci li nga xamante ni moom la ñuy wax graffitis euh, tey nga daal di ginnaaw bi Sénégal yënguwee woon ci ay euh, ayubés yi nga xamante ni moom moo su ñu gis que ni ci benn laps de temps maanaam ci diir bu gàtt rek nga daal di dessiner loo xamante ni yéem na àdduna loolu dinañ ci dikk mais tey dama lay laaj rek lan mooy lan mooy graffitis euh, tey tur boobu ku ko dégg rek métier boobu xel ci lan lay dem. bon mun nañ ne sax ah, ci biir bu fekkee ci biir domaine hip hop la du graffiti sax la ñu tàmm di utiliser comme jargon en fait on va utiliser des terme comme writing wala bombing wala piecing loolu mooy jargon wu hip hop graffiti am na ñu ci d' accord am na ñu d' accordul ci terme bi parce que terme bi après signification bi muy am la graffiti de manière terre à terre genre gribouille yi la mooy gribouille yi boo mën a def ci miir quelque chose que loo mën a def ci miir rek graffiti la loo ci bind wala et cetera et cetera donc am na ñoo xam ne ils sont beaucoup plus puristes mooy ci biir hip hop ñoo xam ne dañoo gis ne c'est un langage élaboré c'est une manière de d'écrire c'est une manière de penser une manière de traduire en image une réflexion wala et cetera et cetera moo tax ñooñu d'accorduñu le fait que mën nañ ko definir comme gribouille yi rek donc ñoom. c' est une manière de dire que ñun ay scribe lañu ay ay écrivain lañ c'est ce qui écrivent moo tax moo writing en anglais écrire ñu ñu gën a d' accord ci loolu mais graffiti la ko ñëpp xamee donc graffiti mun nañ ne mouvement artistique la mouvement la boo xam ne c' est des artistes ñoo xam ne ñoo ñooy utiliser benn technique particulière parce que avant graphe amul woon ñu doon utiliser spray paint mooy bombe peinture pour écrire sur des murs donc graffiti foofu la commencé expression bi au vrai sens du mooy bi ñu commencé jël bombe peinture di ko bindee c'est une manière d'écrire c'est une manière de se revendiquer en quelque sorte moom. c'est une manière de se revendiquer mais tey laataa ñuy dugg ci ci ci ci ci côté boobu dama lay njëkk a laaj yow ban kañ nga door li nga xamante ni moo di eh, grati li kañ nga door li nga xamante ni moo di graffiti bi en plus euh, naka la dikk naka la la dikk. bon man mun naa ne ci aar laa mos a évoluer parce que bi may commencé di def ay dessin par euh, bande dessinée laa njëkk a def boobu maa ngi am sept ans donc bu may am sept ans ba tey nii mosuma arrêté art donte nag euh, continuer naa sama cursus scolaire ba àgg université de Dakar en département de philosophie mosuma arrêté genre art donc sept ans ba tey maa ngi koy def mais depuis fin 2004 jàpp début 2005 laa commencé euh, professionnaliser wu graffiti mais maa ngi ko doon jàng ak benn grand frère boo xam ne ñu ngi ko woowee BK bu Misérable Graphe boobu yaakaar naa ñëpp xam nañ ko ci ci milieu bi parce que il il fait il fait partie des des pionniers donc yu lal fii créer le mouvement graffiti ak ñu mel ni ay tour yu ñu mel ni docta ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ay député ainsi de suite BK foofu laa jàngee graphe ci moom. donc mun naa ne depuis 2004 jàpp 2005 laa commencé def graffiti parce que expression la boo xam ne moo ci doon identifié wu sama bopp en mm-hmm. nan nga ci doon identifié wee sa bopp. déjà y avait le groove hip hop mooy manière d'être hip hop bi euh, philosophie la boo xam ne peut-être jeunes yi lay gën a alerter euh, univers mbedd réalité mbedd manière de penser street et cetera et cetera donc boo boo demee ba boobu noonu euh, dama doon gis ne. Euh, art bi ñuy def ñoom parce que dañoo am euh, unidentité identité visuelle artistique mooy le graffiti man mu interpellé ma ma ne man xam nga fii bu dee ci domaine hip hop yi lu ñu yàgg dégg ci rab break dance ak loolu yëpp man graff laa gën a identifier sama bopp parce que tamit j'étais euh, en même temps artiste donc graff bi day ñëw naturellement ci man ma koy def di ko pratiquer et puis voilà mu dem ba tey xëy na yàlla def li muy def. Mhm. tey bi ñu duggee fi nga xamante ni moom mooy sa sa sa euh, ñu njëkk a benn tableau ñu gis nga def ci ay personnalité yu différentes gis nañ ci suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba gis nañ ci suñu maam Seydil Hadji Malick Sy ñu gis si homme politique yu aussi ñu bëri ñu mën leen ci cité euh, tey euh, image bi nga jël leen ñoom ñëpp def leen ci benn tablo lu tax séparé woo homme politique yi fii hmm, nga def homme religieux yi fii nga boole leen ban ressemblance la ñu am. bon d' abord ñun euh, en général dans le collectif euh, suñu philosophie c' est purement panafricain mooy euh, l' afrocentrisme affirmé d'une manière artistique certes mais affirmé donc ci fànn yëpp que ça soit euh, des identités euh, des entités religieuses ou politiques et cetera intellectuelles et cetera et cetera ñoom ñëpp ils se retrouvent autour de l' essentiel l' essentiel pour nous mooy le panafricanisme mooy. benn vision bi ñu amoon pour yeewaat nit ñi que ce soit les africains se retrouver en fait une invitation de les retrouver autour de l'essentiel mooy déjà self détermination comme Marcus Garvey ni mu ko doon waxee nit gëm boppam yeewu ci boppam xam boppam pour mën a valoriser boppam parce que problème mu Afrique ah, de manière générale loolu la réere bi ñu xaw a réere suñu bopp moo ñu jural yu bëri donc may gis ne ñoom ku ci nekk même su fekkee tu es sa jàngale wala sa combat wala sa sa sa vie li mu inspiré dëgg dëgg dëgg dëgg ak fi nga feeñ ci jamono bi nga feeñee ci contexte bi nga feeñee dañuy gis ne ñu ci bëri soriwuñu diggante esclavage ak euh, colonisation mais ci biir ñu feeñ noonu ci histoire dafa am combat bu ñu doon porté dafa am symbole yu ñu doon représenté te tout comme li ma la ko waxee s'organise autour de ce panafricanisme en fait affirmé moo tax man pour man samay philosophie mooy c'est des gens qui moo inspiré personnellement qui nous ont en tant que collectif et xëy na yeewu rek di leen gis dafa am lu bëri lu ñuy lu muy def ci ñun dafa am lu bëri lu ñuy fàttali par rapport à nos valeur en fait waaw moom mooy en fait matériel euh, principal bi bi bi nga xam ne moom en somme moo définir graffiti parce que idée bi ni mu juddoo mooy dafa mën ay artistes yoo xam ne xëy na dans leur manière de faire de Euh, dañoo bëggoon déjà revendication idée de revendication mun naa ne moo jur graffiti mooy génn wax may kan génn wax lan mooy sama philosophie ngay gis ne foofu la terme vandale jóge mooy ay nit ñoo xam ne c'est des marginaux ñoom ils contre la loi lu tax parce que dañ doon dem euh, ci ay ay ay ay biens publics comme yu mel ni ay train subway art fa la jóge expression yu mel noonu ci biir réew New York yi di dem di bind seen tour wala di bind seen tour crew wala di bind seen pensée seen philosophie affaire bi parce que train bi suy voyage day voyage ak message bi donc loolu jur graffiti léegi nag lu tax mu indi bomb mooy mënuñu ko woon def ak pinceau peinture parce que day jël temps te booy def en quelque sorte quelque chose d'illégal foog nga def ko mu rapide et précis après tu passes à autre chose donc ñoom dañ doon ñëw rek bind loolu terme writer sax fa la jógee ñu jël ay bomb parce que bomb gën a gaaw da ngay bës rek mu mu bind benn yoon loolu nag moo créer en fait ce mouvement graffiti léegi nag ñu dem ba ñu gis que ni mu ngi gën a yi yéen a ngi am ay ay ay couleurs yi ngeen xam ni moom ngeen soxla gis nañ ko ci léegi ci sa euh, placard bi tey ñu différentes couleurs yi lan lan lan la ciy joué ndax tey mënoo woon jël benn couleur bleu nga def ci euh, image bi nga soxla. Hmm. wala nga jël benn couleur rouge nga def ci image bi nga soxla différence bi ñuy noté ci couleur yi loolu lan la ci. bon déjà euh, définition couleur rek c'est assez culturel. mooy tey euh, tey ñun couleur li mu mën a signifier si ñun chez euh, chez les africains mun na bañ a signifier la même chose en Europe par exemple ñun quand on peint euh, ci suñuy couleur da ngeen gis en tout le temps des des tons li ñuy woowee ñun tons chauds wala ay ton ocre mooy ay marron orange rouge jaune et cetera et cetera c'est par rapport à notre milieu de vie ñun ni ñuy dundee zone yi ñu nekk nga xam ne ay zone tropicaux la ay zone aride la des fois par rapport ak ñiy def euh, graphe en Europe ngay gis ay ton froids ñoom bleu turquoise et cetera et cetera parce que seen milieu de vie aussi daf leen conditionné moo tax ma ne couleur c'est très culturel ñun mën nañ ko gis benn certaine manière boo xam ne bu ñu ko bindee ñun noonu lañ koy définir ñoom bu ñu bindee définir ko autrement mais nag dans tout ça dafa am ay ce qu'on des valeurs mooy couleur tey ko lu mel ne noir blanc ay valeur la mooy tey am na lu ñu bëgg a exprimer bu ñu defee noir rek sa passe plus parce que ça ça évoque l'idée d'une d'une conscience collective mooy tey nit ñëpp daak xëy na du question de consensus de dañoo d'accord ne noir lii lay signifier mais noir dafa am lu mu leen di tey boo jëlee rouge am na loo xam ne euh, ça ne va pas passer inaperçu parce que boo ko defee rek nit ñi xëy na dinañ ci gën a bàyyi xel et cetera et cetera donc ci base yooyu la ñuy liggéey parce que tey lu mu néew néew après da ngay dem gëstu xam lan mooy le cercle chromatique nan ngay def ba définir couleur nan ngay mélanger am ton de couleur yi sur quel message passé lan mooy gën a attirer les personnes parce que graffiti tamit loolu la tu attires les personnes par l'esthétique door leen wax la message derrière mooy sens éthique bi muy caché en fait. Mm-hmm. tey définition couleur euh, li nga xamante ni moo di rouge bon ñëpp dañuy jàpp ni colère la ndaxte dañu dem sax ba Sénégal léegi boo jëlee couleur rouge sax. ñu ne yow xanaa da ngaa mer da nga am looy ñaxtu genre yooyu foofu dafa mel ni yéen ak sénégalais yéen ci bokk définition waaw sa ci dans d'une certaine manière en fait on se retrouve tous autour de yenn définition yi gaa nag mënul firi la même chose pour ñëpp parce que tamit mënuñu def unanimité par rapport à à tous tous euh, tous les voies et moyens en fait yi ñuy jaar pour exprimer wu mais tey mun nañ ne bu ñu xëyee tey rek fekk benn mur boo xam ne ñun d'habitude il est très rare nga dox gis Sénégal wala Dakar benn kër boo xam ne dañ ko peintir tout en rouge mais tey bu du defee benn mur bu rëy en rouge rek les gens vont prêter attention nii lan lañ fi waaja def wala tey ñu jël benn mur peinture ko tout en noir dañuy laaj lan la ñuy waaj a def donc et cetera et cetera couleurs yi ñuy jouer c'est juste pour attirer l'attention en fait bu ñu attirer l'attention dooray wax suñu message mais en somme du définition bu fixe pour ñëpp en fait. kon daal définition couleur yi ça varie. ça varie ça varie selon les cultures ça varie selon aussi des personnes parce que question de culture aussi euh, nit ki mën na ñëw Sénégal di habillé wu tout noir nit gis ne xëy na eh, il va porter un deuil wala et cetera et cetera man personnellement damay expérimenter loolu chaque jour parce que pour la plupart du temps je m'habille en noir mais nit ñi da ngay gis définition bi ñuy jox euh, sa manière d'habiller te fekk juste man c'est par rapport à déjà un feeling personnel mais aussi à une appartenance politique boo xam ne ñun euh, man personnellement je représente le mouvement Black Panther bi nekk fële Californie Oakland ma leen représenter en Afrique de l'Ouest donc notre manière de s'habiller est tout en noir donc ça dafay dafa am lu muy évoquer ci ci subconscient wu nit ñi en fait voilà. Mm-hmm. léegi eh, tey mur yi nga xamante ni moom ngeen di jël di di di def seen euh, graffiti euh, naka ngeen koy obtenir ndax da ngeen di dem euh, gisanteeg bon ci municipalité ba foofu ngeen dañoo soxla woon benn mur wala da ngeen dem gis benn bon këru jàmbur ngeen def ci li nga xamante ni moom ngeen bëgg a def passer seen message naka lay demee. bon d' abord euh, ci texte de loi gra graaf fii nii Sénégal amul texte de loi bu koy bu koy bu koy buy jox autorisation graffeur mu def ko comme noonu la amul texte de loi bu koy interdire donc c' est un art toléré de manière générale c' un art populaire mooy nit ñi ñoo ko adopté par rapport aussi à sa création ni mu duggee Sénégal parce que comme wax naa la création aux amérique wala feneen ak feneen ñun Sénégal le mouvement graffiti c' est né avec le mouvement Set Setal mooy tey artistes yi dañ daan génn bu ñu génnee ñun ci week yi quartier bi ñëpp génn ñu nettoyé quartier bi defaraat ko yeesalaat ko mais dañ doon gis à chaque fois su nit ñi yeesalee ba pare ba dem da ngay gis nit ñi amoon benn attitude boo xam ne ñoom mooy ñëw saw si mur yi wala ñëw déposé fa ay mbalit et cetera et cetera ñoom nag ñu gis ne en en parallèle le sénégalais est un être boo xam ne même si c'est il n'est pas profondément religieux dafa jox respect guide religieux yi. ci nga moo tax nga gis miiru Dakar yi bëri ay image yu sëriñ parce que foofu la mouvement graphe jugee dañ daan jël image yu sëriñ yi def ko ci mur nit ki bu ñëwee pour saw day am kersa nit ki bu ñëwee pour teg mbalit day am kersa mu reculer loo insalubrité noonu la mouvement graffiti juddoo Sénégal léegi nag ñu entretenir cette même héritage mooy bu ñu demee ci bërëb boo xam ne dafa mel benn melokaan bu boo xam ne rafetul ñu jël ñun en tant que artiste graffeur ko ba pare porter benn message boo xam ne après daf fay des day durer donc ci yëpp optique boobu la population bi approprié wu art boobu di ko protéger di protéger œuvre yooyu parce que bu ñu defaree milieu ba pare dañuy seetlu ne day day nekkaat mur de fréquentation benn exemple bu may gën a jox mooy muru Liberté 6 bi avant juste Walf mur boobu nit daanu fa sax jege duré fa deux secondes ndax ni mu meloon ñun ñoo ñëw nettoyer foofu yëpp peinture ko def ci reportage après bi ñu xëyee defu sax semaine da ngay ñëw fekk ñu fay teg ay commerce léegi parce que loolu la loolu moom mooy mission wu graffiti donc ci base boobu soxlawuñu autorisation pour le fair comme aussi du ñu jug dem fekk benn bërëbu jàmbur mooy benn këru jàmbur ñëw bind fa wala graphe loolu fu ngeen ko gis Sénégal xam ngeen ni c'est pas un artiste graffeur professionnel bu ko def parce que lu mu néew néew xam nañu suñu aar ak xam-xam bi mu àndal en fait. kon daal yéen bu ngeen gisee benn mur rek am message bu ngeen bëgg a véhiculer da ngeen def da ngeen koy def vite fait comme mën naa mën nañ jàpp que ni bon graffeur seen métier bon c'est un métier clandestin. bon pas du tout au Sénégal. Mm. la preuve mooy ñun suñu graffe dañuy graffe en en journée en fait. Mm. journée la ñuy graffe mooy dañuy ñëw jël suñu temps. installé wu c'est une réflexion derrière c'est c'est une stratégie derrière ay toog la échanger xalaat mm. composer quelque chose boo xam ne par l'esthétique ça va attirer mais fond bi mooy on va passer un message donc c'est quelque chose de pas du tout clandestin parce que en plein jour lañ koy def voilà. d'accord ñu ñëw ci li nga xamante ni moo di matériel yi ndax instant bi ni ngeen koy amee amine bi ndax mettiwul wala yéen yéenay toog comme ni nga waxee sànq am na ñoom dañuy mélanger seen ay couleurs yéenay toog mélanger seen ay couleurs mais produit bi nag naka ngeen koy amee. bon loolu mun nañu souligner à travers l'historique suñu grand frère yi yi nga xam ne ñoom ñoo impulsé mouvement bi de Docta BK Dip euh, DP-Dope waa Dofu Aar bi Syndicate 21 et cetera et cetera ñoom ñëpp graffé nañu charbon graffé nañu euh, craie graffé nañu lasso et cetera et cetera pétrole ak yooyu yëpp graffé nañ ko parce que benn pulsion artistique la rek benn expression la ñu génn bëgg a wax ñu jël utiliser ko balaa ñu commencé di laal spray paint mooy bombe peinture yi. tey imaginez euh, l'évolution qui a été faite mooy tey on a des marques professionnel de peinture graffiti mooy bomb peinture yi ngeen di gis Sénégal léegi c'est des marques professionnelles yoo xam ne dañoo spécialisé wu exclusivement ci graffiti c'est pour vous dire à quel moment le mouvement est très très respecté à l'extérieur man mi génn xam naa ci dara mooy mouvement wu graffiti fii Sénégal boo génnee ci biti cër bi ñu lay jox dangay ngay mujjee sax am kersa tellement il nous respecte parce que dañoo xam fan lañ jugee lan la ñu def ba am fu ñu ko eggalee tey côté matériel on a l'accès a au matériel au vrai sens du terme pour def graphe te fekk spray pen yi ñu doon utiliser même les tout début sax du woon spray pen pour pour def art graffiti c'était pour ay lakke oto yu xoosu vélo bu xoosu léegi nag artiste dañ ko doon jël di exprimer wu sur cette basa ba tey mu jur tey euh, dimension professionnelle bi nga xam ne matériel bi daf ko rallier. Mhm. léegi matériel bi daf ko rallier mais ndax euh, fii da ngeen ko am fii ci Sénégal wala il faut ngeen génn euh, en Europe pour am ko. bu njëkk ba dañ daan génn Europe pour am ko mais léegi alhamdulilah am nañ ko fii Sénégal. Mhm. parce que dañoo rapproché wu au niveau de certains fournisseurs expliquer leen ne leen lii ak lii ak lii moo fi ne. ñoom comme ils ont euh, les moyens logistiques de faire venir la chose ñu collaborer ak ñoom ñoom ñu indi ko donc c'est c'est très disponible léegi Sénégal ayca ñu ñëw ci li nga xamante ni moom moo tax euh, ñëpp ñu bëgg a dem def euh, décou découvrir ñi nga xamante ni ñoo di RBS Crew mu di image bi ngeen def euh, ci manifestation bi comme ni nga koy wanee nii bile image tey Madzo ban jàngat nga ci mën a indi professionnellement nag parce que yow yaa toog yaa ko liggéey yéen a toog yéen ko xalaat image bii ni ba mu ko doon décortiquer bon déjà euh, euh, désir ci désir la jóge du man sax maa porté euh, véritablement image boobu image bi mun naa ne fii lañ toogoon comme fii ngeen toog fii ñu toog nii fii lañ toog kii ne loo xalaat ci lii kii ne lu ñu xalaat ci lii ñu ñu dem collecté idée wu ñëpp teg ko bu ñuy liggéey noonu la ñuy liggéeyee kii moo day joxe xalaatam akongaa joxe xalaatam man ma joxe sama xalaat Freeman Xalima et cetera et cetera Bograph ñoom ñëpp ñu collecté image bi feeñ. parce que suñu philosophie la ñuy véhiculer benn position la ñu am mooy euh, suñu position du du du on fait pour soutenir Ousmane Sonko moom wax na ko démb Ousmane Sonko ci boppam wax na ko déclaration ne même ñi génn def mur boobu du man maa leen tax a jóg kon ñun personnellement taxuñu jóg moom on se range toujours au côté du peuple ba pare nag dañoo dund ak le peuple nekk le peuple di gis loo xam ne Euh, peu importe euh, privilège yu ñu mën a am à l'extérieur dañ ko fay mës a bàyyi saa ne ñibbi si Sénégal parce que Sénégal la ñu am Sénégal la ñu gëm Sénégal lañuy ñuy dund Sénégal la ñuy jëf ci lépp mu feeñ du tey la ñu commencé def mur bu mel nii mais cette fois dafa rejoindre benn genre frustration benn genre cumul de frustration bu génn ci ñëpp ñun en tant que artiste dañoo nekk genre réceptacle de frustration réceptacle de frustration boobu ñu nekk mun nañu nekk réceptacle de position onde wala lépp lu mu mën a nekk ay ay ay ay ay onde positive yu ñuy dikkal comme onde négative ñun dañuy am responsabilité en tant que artiste firi ko en image porter ko à la connaissance de tout le monde mooy ñëpp gis ko du question de bañ Macky Sall moo tax ñu def ko suñ ko faloon comme président mu def li mu waroon def du ñu àgg foofu mais dañ ko fal président mu wor engagement bi mu diggee ak peuple bi ñu génn wax ak moom de manière artistique ginnaaw bi ñu waxee ak moom ci terrain boo xam ne gis na ba pare donc looloo tax ñu génn wax ñun suñu point de vue nan la ñu xalaati situation bi booy résumer ko en image parce que kenn du nier que y a la main extérieure et précisément de la France sur nos problèmes internes loolu ku ci gëmm wala politicien bu mu munti doon c'est de l'hypocrisie ñoom ñu wax ko ñu ñàkk ko wax ñun du duñu ay dof dañoo bokk ci génération boo xam ne damay dama insister ci angle boobu mooy RBS principalement ñi ko ñi ko composé on a cassé cet héritage de artiste day dem ba amatul choix ci àdduna rek mu ne day def art pour la plupart c'est des bacheliers nit la yoo xam ne ay bac S ngay fekk biir RBS ay bac T ngay fekk biir RBS ay docteur en en pharmacie ngay fekk berees ñoo xam dañoo am doctorat donc c'est des gens yoo xam ne duñu ñu dof jàng nañu xam nañu lu xew il peuvent porter un regard critique sur l'actualité politique et cetera joxe seen point de vue de manière artistique loolu lañu def ba ñu génnee on a voulu représenter l'image de ce qui se passe actuellement ñu def suñu image on a représenté le président de la République parce que sur cet appel de responsabilité moom moo njëkk a dressé wu tey bu ñu bu événement yi xewee Sénégal war laajaat boppam mooy kan moom moo war a njëkk a laajaat boppam moom mooy kan moo tax image bi ñu def et je l'ai dit hier ci benn interview mooy la chose que j'ai trouvé triste mooy daf leen waroon a servir de miroir ñu posé wu seen bopp ci est-ce que ñu ngir remplir responsabilité bi leen war ak seen population mais defuñu ko parce que le, désir de vouloir l'effacer mooy forme de lâcheté boo xam ne da ngay gëmm sur ce qu'il y a de très moche en ñëw mais dama bëgg nga décortiquer ma de pas à pas image bi d'abord. Mhm. parce que am na benn maire euh, Ndiaye bu toog ci këram di seetaan mais day gis ni nii rek. Mhm. mi ngi gis ni kii président Macky Sall kii benn xale bu ñuy rey la mais couleur yi xam nga mhm. tey ñun ñi xam drapeau France dinañ xam mais am na ñoo xamante ni bu ñu gisee bleu blanc rouge. du ñu comprendre. nga décortiquer ma image bi. léegi dañuy dañuy jëlee mur bi cat ba parce que li ñu commencé mooy dañoo def benn euh, visage en fait boo xam ne dafa sol euh, drapeau Sénégal kagulewu mooy tey dem nga sax bay bay def manifestation ngay ngay ngay nekk dans un combat légitime tu es obligé de te cacher parce que ñu bëri euh, tiit da leen conditionné ba mënatuñoo yuuxu seen i droit ñu wane loolu nag mais de malgré tout ça dañuy jug image boobu la ñu bëggoon passé après ñu bind ci ci côté bi you can't arrest an idea mooy mun nga jàpp nit mais idée mënoo ko tëj idée luy law la mënoo ko tëj ñu ñu ñu insister loo nit ñi ñu bàyyi xel ne on ne peut pas se déclarer d'une position de neutralité par rapport à tout ce qui se passe parce que venn forme de renonce day nit ki dafay day day day renoncer ci responsabilité forme de lâcheté la ñu insister sur loolu wax loolu rendre hommage ay nit ñoo xam ne dañoo taxaw moo tax ñu ñu def benn représentation benn membre FRAPP UCAD wax nit ñi ne la le corps estudiantin da ngeen a am responsabilité aussi ci ci ci li xew mooy prise de position yi ngeen war a jël affirmer ko aussi donc dañoo insister si loolu balaa image phare bi di ñëw image phare bi mooy image centrale bi nga xam ne dañuy gis le président Macky mu pointé du doigt parce que loolu image la bu am. déjà faut souligner que on l'image de président bu yor arme à di tiire mais image boobu dañ ko bëggoon a jël imagé ko mooy dugal ko ci benn contexte boo xam ne moo xew ñu gis ne mooy li ma wax responsabilité yi moom moo war a njëkk a laajaat boppam ay responsabilité ñu jël image boobu wane ko muy tirer mais tirer sur benn booy boo xam ne joxuñu ko kanam boo seetloo bu baax dañ ko def mu nekk anonymous mooy ça peut être n'importe qui mooy li Baye Niass doon wax rek fitna fii rek yaa koy dégg muccagoo ci kon kenn rëccul moo tax ñu bind ci t-shirtam doomu jàmbur. parce que le président Macky Sall li xew yëpp après mu wane ci benn genre indifférence boo xam ne il s'est pas déclaré au vrai sens du terme dafa mel ne genre dara xewul Sénégal en fait ñu insister loolu ci loolu noonu pendre image boobu pour mu rappeler wu lan moo nekk di xew. ñu pointe ko du doigt ne ko nag yow yaa responsable yow yaa ko def yow yaa tiré ci biir yëreem bi ñu def ci drapeau France parce que comme je lii ay jeunes lañ loo xam ne lu mu néew ne am nañ notion géopolitique xam nañ lan moo xew ci àdduna France mën na nier de fond en ne loxoom newu ci mais day wax lu ko neex loxoom mi ngi ci ñu insister loolu ci drapeau boobu noonu bleu blanc rouge bi c'est c'est fait de manière exprès parce que li ñuy def lu tax ma ne la nëbbuma ko en plein lañ ko def de manière exprès pour wan nit ñi ne la main de la France mu ngi biir Sénégal ba tey Sénégal colonie française la ba tey nii nii nii indépendance ndax suñu bopp la ñu insister si loolu wane tey responsabilité bi président bi yor ci genre mise de la France dans nos politique intérieures ci suuf ñu defar fa ay ay ay ay homme de tenue ba pare alerte waat homme de tenue seen sens de responsabilité aussi parce que formé wuñ leen pour ñuy tirer ci kaw nit ñi ndax ñoom. ñu ci bëri dinañ seetaan interview bi ñun jàng nañ xam nañ lan mooy tir de sommation nit buy jubal ci yow am nga deux tirs de sommation balaa ngay tiire ci kawam donc nit bu jël un homme de tenue bu dem jël sciemment arme à feu ba pare def ci balle vrai viser nit jël temps tiire ko ba mu daanu kooku c'est criminel bu ñu war a traduire en justice parce que li muy def moo ko tey c'était pas dans le contexte de dañoo song ñu désemparé wala euh, légitime défense amu fa c'est des mensonges kooku dafa jël sciemment décision bu rey nit parce que foog na ne tenni bi mu sol da koy protéger donc ñu alerter leen ci seen sens de responsabilité ak devoir bi ñu am par rapport au peuple te ñoo ñu def loolu ñu war leen a traduire en justice wër leen comme ñoom ni ñu amee même engouement beeg yàkkamti dem jëli booy yi nga xam dañ nee nañ woo dañ doon dévaliser pour tëj leen do ñoom war nañu am même engouement boobu dem jëli homme de tenue yi def loolu tëj leen traduire leen en parce que dañ ko def te ñoo ko tey donc waaw image boobu la ñu def mooy image centrale après ñu rendre hommage ku mel ni Guy Marius après ñu def image boo xam ne c'est une femme qui assiste à tout ce qui se passe muy gis dëkk bi di tàkk ñu bind all power to the people mooy le véritable pouvoir appartient au peuple su tëjee ko phrase boo xam ne dañu ki war a jubal buy dëngal yoon amatu fa mm-hmm. ba pare nag rendre hommage ñi nga xam ne bind seen tour ñoom ñëpp moo tax ne serait que nit tur yooyu sax ñu bind ci mur bi gars yi bi ñu ko effacé wan nañu à quel point ils ont un mépris par rapport vie humaine yi ñu sacrifié. bu ñu ñëwee ci li nga xamante ni mooy eh, ngeen toog def seen liggéey ba pare ñu effacé ko d'accord dinañ ñëw ci effacé bi mais ci. ci ci image bi ñoom li tax ñu effacé ko nekkul xale bi ñu allumé li tax ñu effacé ko nekkul policier wala force de l'ordre yi ngeen teg foofu noonu pour rappeler leen que ni euh, ay criminel la ñoom aussi dañ leen war a jàpp li tax ñu effacé ko mën nañ jàpp ni aussi bokkul ci euh, bon peut-être sax drapeau France bi ci la bokk ndaxte nee nañ ay tubaab ko effacé mais li tax ñu effacé ko nekkul nit bu taxaw di allumé mais c'est la personne c'est la personne de euh, Macky Sall moo tax ñu effacé ko loolu yëpp ñëpp nangu nañ ko mais est-ce que tamit hmm, mënuñu ko woon xoolee ci beneen côté lu dul ñu jël personne euh, bu lu dul ñu jël ki nga xamante ni moo di président Macky Sall ndaxte day mel ni rek dañu ku ñëw benn étranger bu ñëwee xool image bi daanaan ah le Sénégal a un président criminel mais moo am moom loolu moo am président boobu ñu fal su mënul def différence entre sa personne et sa personnalité problème day am mooy Macky Sall Sall la ñun suñu yoon nekkul ci Macky Sall ñun xam nga la moo ñu ñor le président de la république te loolu dafa am institution la Macky Sall du institution président de la république mooy institution la personne nag bu ñuy jël porté ko ci ci degré de pouvoir boobu war na yeewu ci ay responsabilités am parce que mooy li ma wax démb problème mu Sénégal mooy defuñu différence entre responsabilité ak privilège te bu ñu jëlee un fal ko te li ko fal xam na ko nit ñi ko fa yëg teg xam na ko ak lan moo tax ñu teg ko fa su ñëwee trahir pacte boobu kooku mérité wul respect buñ ko bu bu bu muy xaar en tant que président de la république te geste bu mu def après da ciy répondre parce que tamit am na loo xam ne du tey la fi lii xewan ah, du tey ta tamit ay artistes dressé wu wax li ñu war a wax une autorité wala benn nit boo xam ne dañ ko jox ay responsabilité mu trahir ko de manière sia mm-hmm. léegi nag ñun suñu suñu responsabilité en tant que artiste mooy tey dañuy def art boo xam ne miroir la mooy nit ku nekk daf ci war a seetlu xoolaat boppam laajaat boppam teg moom li ma wax sànq ki war a njëkk laaj boppam mooy la président de la république moo tax ñu teg ko foofu ne ko sawaay ñun dañ la fee teg pour dara voilà. léegi tey bi ngeen euh, defee euh, seen seen seen seen euh, liggéey ba pare ñu geesu gis ni dañ ko effacé bi ñu ko effacé wee ban yëg-yëg ngeen ci am bon ci li gën a metti sax ñu ne ay ay ay tubaab ñoom ñoo ñoom ñoo ñëw daal di effacé bile image. man déjà personnellement satisfaction laa si am lu tax satisfaction laa si am mooy bu amoon ñu doon douter ba léegi ni yaa yaa yaa une forme de dictature bu xew Sénégal lii jox na leen preuve. parce que la censure dafa bokk ci forme de dictature tey Norbert Zongo journaliste la lu tax ñu rey ko parce que li mu doon wax la loolooy censure censure nit bu koy def un homme d'état et je pèse bien mes mots homme d'état dafa am lu muy signifier parce ay termes mais ça signifie beaucoup boo demee ci yenn dëkk yi un homme d'état wala un président de la république un ministre un officier wala affaire yu mel noonu dafa ànd ak responsabilité bu diis kooku warul ragal ñu koy critiquer kooku saa su ne ñi ko fa teg mooy le peuple bu ñu nekkee ci ay attentes di am lu ñuy xaar ci moom moom dafa war a nekk dans une réflexion constante boo xam ne dafa war a laaj est-ce que maa ngi def li ma war a def par rapport au peuple parce que ñoo ma fi teg mais gis lu mel nii nga dem effacer ko saa naa pas été très intelligent de leur par ba pare ñoom ñoo jël message bi au contraire porte ko à un autre niveau parce que le moment bi koy message bi ñu koy supprimer fekk na jàll na ba pare et à un moment donné ngeen baal ma ci kàddu il faut être très bête pour ne pas xam lan mooy réalité de notre époque mooy les réseau sociaux et la force qu'ils ont que ça soit Twitter Facebook Instagram ak keneen ak feneen ak feneen a ci yam mooy tu es interconnecté monde bi ñëpp a ngi koy gis l'opinion internationale nga tëj fii ay chaîne bañ ñu émettre il faut il faut vraiment ku intelligent wul moo koy def parce que nag réseaux sociaux gars ñu ngi wax nit ñi ñu ngi gis du ñu ay dof léegi ñun suñu message dañ ko porter dans la rue mooy comme li ma wax c'est un miroir nit ñëpp war ci seetlu laajaat seen responsabilité reconstruire ce pays là sur des bases éthiques yu wóor mais su fekkee da nga bëgg a message boobu parce que da nga gis ne personnellement man la diriger wu fekk tas na ci internet bi ba pare ba pare mu joxaat ko le fait de mu mu effacer ko am na ay ay ay ay médias internationaux yoo xam ne looloo leen gën a alerter mooy censure bi moo leen alerté pas le message en tant que tel mais censure bi ñu def en fait. Euh, tey biñ ko effacé ndax après jotoo leen ay ay ay appel wala ay message yu jóge ci ci moo xam ci ñi nga xam ni seen ay fans lañ wala ñu jóge ci ñoom tin côté ñi ko effacé pour bon bëgguma wax sax menace mais pour vous pour vous dire que nii la prochaine fois bu mu amati pour di leen avertir la waaw jot nañ ay vidéo ay lâche yoo xam ne dañoo bàyyi ñun ba ñu dem ñu ñëw di ko effacé di porter ay menaces. mais comme c'est dit ñun dañ ko def en plein jour dañoo commencé de 9h30 à 18h30 presque donc suñu su fekkee ñoom li ñuy wax noonu dafa dëggoon dañ ñoo waroon fekk foofu ne ñu dañ koy effacer ñu xool nan lay demee mais c'est très lâche nga bàyyi ba nit ñi dem après nga ñëw effacer ko ba pare def say vidéo naan da ngay menacer ñun menace safuñu. miir boobu fan la fii la nekk en face yëngu leen euh, rond point passerelle rond point 26 unité 26 en face yëngu leen donc xam nga foofu nekkul sax si biir koñ. laqatuwuñu pour def ko on a passé tout une journée laa wax di ko def gis nañ ko toute une journée ñoom gis nañ ko les passants ñëpp filmer ko ñëpp partagé ko ñu ñëw bàyyi bañ dem ñu ñëw effacé ko def vidéo jouer au gros di wax woy bu ñu ñëwatee ne ne ne ñu on a pas ce temps là ñoom bu ñu ko doon effacé ba pare fekkoon ñoom li ñu wax noonu dëgg la ci ñoom dañuy dañuy fekk foofu ñu koy effacé ñu ñëw effacé ko suñ kanam foofu la beneen problème di judduwaat encore ah mu mel ni eh, waxtu bi ñu jagleeloon sax mi ngi bëgg a jeex eh, tey ban eh, sa der dernier moo lan lay nekk surtout ci côté métier bi nga xam ne yéen a ngi ciy yëngu d'abord ndax am ngeen benn bon dégg wax nga ma ni am ngeen ci biti respecté nañ leen torop mais tey jii lan ngeen di sàkku fii ci fi nga xamante ni moo di Sénégal wala Afrique pour que ci ci côté gëdd daal. man dafa am lu ma tàmm di wax gars yi may jobal yëpp. dama ne leen dëkk boo xam ne joxul euh, Cheikh Anta Diop gëdd bi mu fi moom démb rek gis nañu li xew Nigéria Sokoto gàmmu Cheikh Ibrahima Baye Niass nga gis ay milliers et des milliers de personnes lu mu mënul am ci dëkkam dëkk boo xam ne respecté wul Blondin Diop dëkk boo xam ne Mamadou Dia sacrifié wu na fi ba tey nga gis réalité politique bi parce que lii ñuy def maguy politique yu sale yi ñuy def c'est un ci ñu mel ne ay juge baa mbay dëkk boo xam ne respecté wuñu ñooñu ñun simple artiste du nu respecté donc wutuñu reconnaissance Sénégal loolu laa bëggoon mu leer ci nit ñu bëri parce que ñu bëri des fois dañuy jaawale dañuy foog ne nit ñi dañ koy def pour buzz wala lii ñun personnellement nekkuñu ci optique boobu ci ban optique la ñu nekk mooy ñun suñu souci sax li ñu li ñu gën a ñor parce que RBS du Sénégal rek nit ñi dañoo foog ne RBS groupe graffeur la bu nekk Sénégal mais c'est un mouvement artistique panafricain bu nekk États-Unis mu ngi Suisse mu ngi France mu ngi Cameroun mu ngi ba Ouganda mu ngi Kenya mu ngi Bénin bi ma jógee barki démb mu ngi fépp parce que li ñu bëggoon mooy créer un réseautage panafricain d'art boo xam ne on ne va pas juste être dans la dénonciation parce que aussi on est dans l'entrepreneuriat ak et cetera et ak lépp lu mu jur pour ñu ñu yàgg a suivre xam nañu bu baax nu ñuy doxee wuruñu reconnaissance su Sénégal. a bu baax parce que man personnellement man mi wax ak yow je vis de ça moom mooy sama moom mooy sama dund mooy sama liggéey. su dee ci base la boo xam ne c'est un apport capitaliste maa ngi ci liggéey di ci di ci tedd di ci di ci dimbali ñu ma ci war a dimbali. parce que graphe en fait dafa large du dem rek graphe ci mur. graphe ci mur boobu mun na jur marché boo xam ne c'est de décorations internes graphe ci mur boobu am ibbi na marché wu ce qu'on appelle le street work dans hip hop mooy l'habillement am na digital art painting dans la conception des logos design affiche de film et cetera et cetera donc marché la boo xam ne c'est ouvert à l'international aussi donc ñu Sénégal rek ñu ngi liggéey ak yeneen dëkk ak euh, ñoo xam ne xëy na foofu la ñu gën a mën a jox euh, respect art bi ñuy def en fait. ñu beaucoup di leen remercier bu baax a baax.